Euh, mu nekk euh, daje boo xamante ne ñëpp ñuy liggéey ci euh, service yi àdduna wërngal këpp tey ñu koy féete mu mel ni yéen da ngeen choisir Yoro Sidibé comme mu nekk seen traiteur ci événement yu mel nii surtout fii ci université bu Thiès alors li ñu mel nga fàttali ñu tur bi rek wax ñu ay kàddu seede ci liggéey bi. muy secteur bu mu mën a doon tey la la yoon jagleel pour may la bés bi nga mën cee teel bégal ci sa xol wax ci itam li nga xamante ni moo la naqat yi ak nga xamante ni moo nga soxla ñu déposé ko au niveau de la gouvernance ñun waaye sa su déposé nañ ko gis suñu cahier de la gouvernance maintenant pour répondre à ta question Yoro Sidibé moom c'est ak université c'est une histoire man démb dama ko doon tooñ est-ce que sax ñun

plat yi ngeen gis nii plat yi sell na sell na am na am na hygiène et euh, lépp loo nga xamante ni rek soxla nga ko ma doon ko naan ni du cher dina bari dina neex ñëpp dinañ kontaan wax dëgg yàlla macha allah ñu koy ñaanal rek ñu yàgg ànd di féete suñu yëpp.